mooy ak wéet ci nguuram noo koy sant moom buur bi nga xam ne bu lépp jeexee moo fi des mooy aji sell ci jàll te goo xam ne ci azal la mooy buur bi nga xam ne bët bu tege ci moom te am moo ko amal mooy buur bi nga xam ne moo atte ay atteem ci ay yooyu mu attekat du ci dal ginnaaw mukk mooy buur bi nga xam ne moo séddale ay wërsëgam séddale ay digam ci diggante ay jaamam wërsëg yii mu daganal leen waaye wërsëg yee mu tere leen bind ñii texel leen bind ñaa texe di leen yàlla yàlla boole ci ñim texel te mosuñu ci ñim texe di maa ngi koy sant ci li ñu jox ci ay xéwal ndax li mu ñu jox ñu di ko xéwloo amul kenn koo xam ne mën nañu koo xéwale ku dul moom noo ngi seede tey wóolu tey dëggal ne amul benn buur bu yeewee ak jaamu jaamu ko mën a jural njëriñ ki koy jaamu ñàkk gee jaamu mën a jur lool ku dul yàlla moom rekk la amul kenn ku bokk ak moom ak nguuram muy seede soo xam ne bépp jàmm bu ko seede loolu ñu def ci àdduna danga ci jot ñoo ngi seede tey wóolu tey dëggal ne sayyiduna muhammad ndawam la waaye du jaamam mooy sangub yonent yépp yàlla julli ak sëlmal nekk ci moom moo koy ñooñam ak saxaabaam julli ak sëlmal goo xam ne dafay toftaloo ba kër bis pénc mbokk yi li ñu bëgg a waxtaane tey mooy jëmm yi nga xam ne dañoo jóg def li ñuy tudde campagne de la diabolisation des daara mooy ay ndaw yoo xam ne dafa am benn lobby bu nekk ci seen ginnaaw jël leen exposé leen ci kanam askan bi ne leen kaay leen ngeen sabooteel ñu lislaam bu ma ne kaay leen ngeen sabooteel ñu lislaam nag mooy kaay leen ngeen sabooteel ñu alquran ak daare alquran yeeg dong daare yeeg seen sëriñ jàkka loolu yaakaar naa ñu bare bari ñu ngi ko yor ci seen téléphone di ko xool muy xale yoo xam ne ay artistes la ñu xam fii ci réew mi ñu génn toog kenn ci nekk ànd ak loolu lépp ñoom ñay wax kenn ku ci mës sa dem daara amut daruñu baax suñu muy ji waaye ñu nga toog kenn ku ci nekk naan man ba ma nekkee ca daara bi lii ma sama sëriñ sama sëriñ daa def lii laa daa def ca daara ji ngir lan ñu jox ko xeetu sayduna muhammad jox ko adduna bi ne leen ngi nii moytu leen ko ndax moom toroxal aw biir lay def daaraa ngi nii moytu leen ko ndax moom tuutal ay doomu aadama rekk lay def loolu moo ci seen jubluwaay te xam nañ ne ay lobby ñoo seen ginnaaw ci réew nekk daf ci am ay lobby satanique ak lobby maçonnique muy ay lobby yoo xam ne iblis la ñuy xeexal moom lañ bëgg mu am ndam ci kaw suuf loolu nag laa xar wax ba adduna soso ba léegi noonu rek lay dox suñu borom moo ñu ko wax nee na adduna ñaari kuréel la fi xam am muy xisbullah ak xisbu seytaan xisbullah mooy kuréel gi nga xam ne dañuy xeexal yàlla ngir yonent yàlla Muhammad àndam ndam ci mission xisbu seytaan mooy ñi nga xam ne dañuy xeexal iblis ngir iblis am ndam ci kaw yàlla ñaari kuréel yooyu rek ñoo fi xisbullah alaa inna xisballahi hum muflixun xisbu seytaan alaa inna xisbu seytaan humul xaasiruun suñu borom nee na alladina amanu yuxaatiluuna fi sabilillah nee na ñi gëm yàlla gëm jàngale yonent yàlla Muhammad nee na ñoom dañuy xeex ci kaw suuf dañuy xeexal yàlla ngir Seydina Muhammad am am ndam walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaxut ñi nga xam ne dañoo farak seytaane dañoo farak iblis ñoom dañuy xeex ngir iblis am ndam suñu borom nag daan nañu fa xaatilu awliyaa as seytaan yéen ñi nga xam ne da ngeen a xeex ngir yonent bi am ndam taxaw leen ngeen jàmmaarloog ñi nga xam ne dañuy xeex ngir iblis am ndam fa xaatilu awliya ash-shaytaan inna kayda ash-shaytaani kaana daifa ndax ñoom ñuy xeexal iblis iblis ku néew pexe la man nag ñi may xeexal may nekk ci seen ginnaaw di leen doole kon mbokk yi ba adduna sosoo ba léegi ñaari kuréel yi rek fi am benn xale bi ñu ngi toog ne man day bu ma sañoon du dem ci daara di tilim ak a tumuraanke ak a sonn bu ma sañoon damay def ni samay nawle di def mooy di def école di sol yére yu set di gàddu ay saak nangam ak nangam waaye bëgguma dem daara di tilim ak taq gis nga daara jooju ngay wax ne ña fay nekk dañuy tilim ak dañuy taq réew mi ñu nekk gen économie réew mi genn wàll gi ko yor ay doomi daara la ñoo xam ne kii daara yi lañ génn ñoom ñoo ñu yor bi réew bi ñoo nekkoon ca daara yi doon tilim ñoo doon taq ñoo doon yalwaan ñoo doon tumuraanke ñoo doon sonn waaye tey ji genn wàll économie réew mi ñoo ko yor ñoo nekk ci secteur informel tey ñoo fi yor ay société ñoom doomi daara yooyu ñoo yore entreprise yi gën a am solo ci biir ci biir réew mi ñoom door ñoom ñoom doomi daara yooyu kon yow miy wax ni da nga doo doo doo doo dem daara ndax da ngay école ngay dem ndax da ngay bañ a tumuraanke ma ne doomi daara yi ma lay wax ne économie bi réew mi ñoo ko yor ñoom day joxuñu leen woon ay poste ministériel ñu sàcc alalu réew ma dem ubbi ci ay entreprise kenn joxu leen woon ay fonds politique ñu doon détourné ko ubbi ci entreprise ñoom ci ay taabal lañ tàmbalee woon ba yor ay cantine yor ay magasin ba koy ubbi ay entreprise te ci daara ji lañ bàyyi ko ñëw teg seen taabal ci marché bi ñoom seen alal digguwul ci ay détournement dañuy dikk muy gan daara bi ñu nekkoon man ak samay moroomu taalibe dañ ñu fa daan tëj ci benn néeg bu ndaw néeg boobu moo doonoon kasu taalibe yi doon jéem a fàq du ñu génn ci néeg bi du ñu fa bouger fa la ñu daan lekkee suñu lépp daanaka fa lañ ko daan defee. keneen ki man bi ma nekkee ca daara ja dañoo defaroon benn néeg bu ndaw boo xam ne moo doonoon kasoog ndongo yi nga xam ne dañ daa doon jàng. nga xam ne la ñuy def lépp ci biir daara ci biir néeg ba lañ koy defee fa la ñuy lekk fa la ñuy naane fa la ñuy fanaan ñuy takk suñuy tànk takk suñuy loxo mbokk yi boo ko soxortee gan daara la gan daara la am gan hmm? def lépp ci biir néeg ba lañ koy defee boo dee jéem a rëcc dañ lay jàpp dóor dóor laa dóor a dóor bët waaye kuñ ci nekk takk say loxo takk say tànk doo boo dee jéem a rëcc dañ lay jàpp dóor laa dóor a dóor ba nga ba nga bëgg a dee te xale yi koy defloo kat fii ci biir réew mi lañ nekk di ay doomu benn bés dama yelwaañu woon mataluma sama versement te su loolu amee sama sëriñ daf may dóor dóor yu metti ma tiit daw daara ji waaye si guddi googu ci mbedd bi la ma benn xale bu góor sàkku ba daara sosoo fii ci réew mi ba xam ana fan lañ mos a gisee gone gu jigéen guy nekk ci biir daara xëy di gàddu pot di gën di yalwal nit yi xool ji saboote daara ak di ñaawal daara mbokk yi daara ji di daara alquran yonente yàlla Muhammad ak féeti mooy sëriñ daara bi njëkk jàngale alquran ci kaw suuf ana daara ji fan la sosoo woon cee daarul arxam ibnu abil arxam fan ubbi woon daara moom yonent yàlla Muhammad di jàngal alxuraan boo koy rasulullah ñaari mission moo ko indi woon kaw suuf muy jàngale ak yar nag ñaar yooyu benn bu ci nekk dafa am ay hadis yu ko réussir ndax moo wax ci làmmiñu boppam ne innama bu'istu mu'alliman man yàlla daf ma yónni ngir ma jàngal nit ñi seen diine bu ñu jàngee seen diine ba xam ko xam ni ñuy jaamoo seen borom dañu am jàmm yi àdduna am taxit alaaxira benn bi ci des mu ne innama bu'istu li utammima makarim al axlaaq dañu maa yónni ngir ma defaral nit ñi seen i jikko te mbokk yi ku ne jikko rek ne yar ndax jikko ji rafet yar rek ko koy def ci nit kon yonent Yàlla Muhammad mission bi la amul ci kaw suuf muy jàngale ak yar daara ji mu ngi ko ubboon te daaru alxam ibnu abdul alxam daaraam joojee mu yoroon doon ko jàng doon fa jàngale alquran ak sunna ak di defaral nit ñi seen i jikko di leen yar yaru bu lislaam daara jooju ba mu fiy jógee daf ñu koo rafaatal ndax daf ne daf ne woon balligu anni walaw aaya képp koo xam ne mokkal nga lu toll benn ayat alquran na nga ba sa beneen mbokk jullit boo xam ne mokkul ko nag nga fexe ba mokk rek ci yow kon sëriñ daara yi mission bii ñu yor ci kaw suuf ñu ngi ko dolli ci yonent yàlla muhammad salawatullahi wasalaamu alayhi waaye nag jëlewuñ ko ci moom direct dañ koo dolli fii ci ay mag mbokk yi daara ñu ngeen di tuutal daara ñu ngeen di woyofal daara ñu ngeen di sabantal daara ñu ngeen di yàq ab daram ak di ko tilimal te moo ne yéen yéen ñooñu nga xam ne ñu yéenay def ay sketch ne da ngeen di tuutal daara da ngeen koy tilimal kenn ku nekk ci yéen fi na bu ñu la dàqee da ngay daal daw bëgg a dugg ci kër kilifa diine la fa laa bokk ñoom ñëpp nag koo ci wax tey jii mu ne nag murid la mbaat tijaan la wala wala xaadir la te moo ne day bu dee murid nga Cheikhul Khadim mi nga xam ne mooy fondé yoonu murid doonul woon ci kaw suuf loo ko dig sëriñu daara sëriñ Tuubaa sëriñu daara la woon doon na ko ci way juróom ndax dafa gën a jamono ñëw fekk way juróom di jàngale alquran kon ci ay maamaat yi maamaat ci la jële alquran ak i bàyyi moom Cheikhul Khadim bu fekkee ne nga murid na Cheikhul Khadim ni sa wasila sëriñu daara la woon Seydi Malick Sy mi nga xam ne moo gën a siiw fii ci réew mi ci yoonu ci yaan ci tarixa bi ci jaan ya duwut woon ci kaw suuf loolu sëriñu daara sëriñu daara loolu boo xam ne jàng ak jàngale loolu liggéey te daaraam joojee kat ñu ci daara yi way juróom maam Ousmane si mi ne moo ko meññ sëriñu daara la woon kon ci ay maam ak imaamaat la jëlee daara fekkee ne ci ñase ni nga bokk Alaaji Abdoulaye Ñas mi nga xam ne mooy seen kilifa duwut woon ci kaw suuf loolu sëriñu daara sëriñu daara la woon doon ko ci ay way juróom bu dee xaatil nga Sidi Muxtar Kunta bi nga xam ne moo fande yoonu xadriya ab sëriñ daara la woon te jële woon ko ci ay way juróom kon mbokk yi daara ji mënu leen koo tuutal mënu leen ko woyofal mukk mbokk yi sëriñ daara yi ngeen ne da ngeen leen woyofal sëriñ daara yi ngeen ne da ngeen leen tuutal moo ne ñoom day li ëpp solo ci seen adduna ñoo leen ko defal mbokk yi daara yi sëy bu ñu fas ñoo ko takk ndax dañ naan nañ dem ca jàkka ja takk sëy ba te jàkka jooju boo fa demee ilimaan jay jiite ci jàkka ja ci daara ji la génne kon bariwaanu ku toog ne dangay ngay woyofal lislaam da nga koy doyadal da ngay sabatal lislaam sëy bi doxoon ci diggante sa ñaari waajur ab sëñ daara ko takk ci jàkka ja bokk yi sëñ daara bi bu fasee sëy bi ba noppi bu jigéen ji wan ne aw lor dañ naan nañ daw ci nañ daw dañ ci sëriñu daara ba mu wutoo ko wattal mu bind alquran jox la alquran moom ngay sabantal di ko doy dem naan du ma ko jàng ndax damay bañ a tumuraank sëriñu daara boobee ci moom la sa way jur di dem mu bindal sa yaay ak téere mu tàkk ko ci yaramam bu demee ba yaakaar ni dafa war a mucc toll ca aw mat danaan naa dem ci sëriñ daara ba mu wutal ma saafara mu wutal la saafara nga jëfandikoo ko door dem kër docteur boo gënee jamono saa su sa yaram tàngee dañuy daan ne nañ jëm ci sëñ daara ba bu ñu demee muy bind saafara jox la bu sa yaram amee góom ñu ne nañ dem jublee ko euh, nu mu tuddati ni ñu koy waxeeti nandal sëñ daara baa koy bind nga dem nag jàng sa tubaab ba xereñ ca diplômé ñëw toog ci plateau télévision yi xoj xoj sa baat takk sa karawaat taxaw ni da ngay saboote daara te moo ne sëy bi nga gënee jamono day daaraa ko fas lu jiitu ngay judd sëñ daara baa la doon taxaw ci ay ñaan ba nga demee boo war a gën a ñeenti jamono sëñ daara bee lay taxaw nga jàng ba am say diplôme ne damay saboote daara moo ne bisa ngi ñëw boo xam ne boo dee ba ñu la ci jàkk indi la ci jàkka ji du ñu sa professeur du ñu wooy maître ba la doon jàngal sëñ daara ba façon sëy ba nga xam ne moo doxal sa diggante sa yaay ak sa baay sëñ daara boobee la ñu wooye mooy ñëw teg kool ci kawam ñëw taxaw ci sa kanam mbooloo ma taxaw ci ginnaaw mu ne ak akbar allahuma innahu abduka wabnu abduka wabnu amatika sab a ngi nii boo xam ne sa doomi jaam bu góor la di sa doomi jaam jigéen ah koo xam ne nag nee nga bu ma fa bu ma jul aw ma soxla ci alquran damay saboté alquran waaye boo dee tee lu tey te bañ tey ñu bañ laa yóbbu ca jàkk ya di la ñaanal te boo dee ñu bañ laa yóbbu ca jàkk ji di la ndax ñi nga doon saboté ñoom ñoo la ñaanal ci jàkk ji mbokk yi xale yi nga xam ne man xam naa lobby bi nekk ci seen ginnaaw nga xam ne moo leen ko doon def loxo damaa bëgg a wax tuuti ci seenu liggéey ñoom lobby maçonnique yooyu ak lobby sa yooyu nekk ci kaw suuf ba mbokk ñoom ñii ne dañuy saboté daara waaw ndax ñoom yëpp la ñoo seen daara yi ab mission ci kaw suuf seen daara bi jàngale alquran mooy la liggéeyam yar mooy liggéeyam defar ay jikko mooy liggéeyam defar ab société mooy liggéeyam xale bi ñu koy jox bu noppee ci xale bi ba def li war a def ci moom bu ca jugee day doon citoyen modèle doon royuwaay mooy ñii ma doon junj nga xam ne te jii ñu ngi ci réew mi di ubbi ay entreprise di ubbi ay société di jël seen doomi réew ñu nekk ci biir société di liggéey te ñoom ñëpp daaraa leen formé loola mooy liggéeyu daara mbokk yi loola mooy meññeetu daara waaye lobby satanique yi lobby maçonnique yi xam ngeen li seen liggéey ci ko suuf mooy ñoom ñooy promouvoir ak góor jigéen ndax ñoom d'accord nañ ki bu xasee mesure ne kenn waratu ko contrôler du diine du benn diine ci kaw suuf mooy nañ ko bàyyee xelam même bu fekkee ne yeewu na nos ci baatam jox iblis nañ ko bàyyi mu jox iblis mu omat ko loolu mooy seen liggéey ñoom ñooy promouvoir ak góor jigéen ñoom ñooy defaaral góor jigéen ci kaw suuf mbokk yi lobby yi may wax nii ñoom ñooy défendre ak lesbienne ci kaw suuf muy jigéen ñi nga xam ne dañuy sëy ci seen biir mbokk yi yi may wax ñoom ñooy défendre jigéen ñi nga xam ne dañ leen may ay carte ñu génn ci benn di jaay seen bopp mbokk yi lobby yi may wax ñoom ñooy défendre sàngara njaayu sàngara ci biir réew mi mbokk yi lobby may wax ñoom ñooy jaa ñoom ñooy défendre nit ñi di naan sàngara nit ñi naankati sàngara ci biir réew mi mbokk yi lobby yi may wax ñoom ñooy défendre ñuy ubbi ay baar ak di ubbi ay ay ay ay béréb yoo xam ne béréb mooy kaay yàlla ci ci ci kaw suuf lay doon ñoom lobby yi ñoo koy défendre waaw mbokk koo xam ne sax ci kaw suuf si nga nekk benn yitte rek mooy nga fi am mooy li yàlla xaraamal lépp nga taxaw ci kaw suuf ne naa ko daganal li yàlla daganal lépp nga taxaw ci kaw suuf ne naa ko araamal waaw kii ndax bokk nag mission sëñ daara bi nga xam ne moom dafa jë dafa doon yonente yàlla Muhammad ci mission ba noppi war a véhiculer mission bi yonente yàlla Muhammad boobu ci kaw suuf mbokk yi ndax ñaari ñi yem nañ mbokk yi ku ne xam ne ne yëmul koo xam ne yow da ngaa seet li ko li naqar yàlla ci kaw suuf nga di ko défendre ñi koy dund ñépp nga di leen défendre ak di leen votalu ay loi yoo xam ne daf leen di protéger ngir lu ñaaw loolu ñuy dund ci kaw suuf kenn mën nañ bañ leen caa mën a dara kooku bokkut ak sëñ daara bi nga xam ne moom defar aw xet mooy xet mooy yitteem kon ñun duñ seen morom duñ seeni nawle ñooy takk seen seen way jur bu ngeen juddee ñoo leen di tudd ñoo leen di joxe bu ngeen faatu ñun ñoo di jullee kon yëmuñu génn ci kaw suuf mun leen yàq deru dara mun leen yàq deru suñu daara ji am maa nag mbokk yi yàlwaan mi nga xam ne ñi ñuy tudde ay intellectuel ñuy toog ci plateau télévision yi di jaboli sa donga daara yi dañ leen yalwaan lool dañ leen di jëng dañ leen def lii dañ leen def laa mbokk bi nga xam ne dafa nekk ci biir daara ji di jàng alquran te ay way juróom bëgg mu jàng da wuti jàng fi mu ne ab sëriñu daara lu jëng koo gis ñu jëng ko ci daara way juram ñi ko jur moo koy toogloo ci daara ji ba sonn xale bi nanguwut a toog mu daaj ko ak jëngam def ko ci tànki xale bi indi ci daara ji ni sëñ daara bi téyel ma ko ci daara ji ndax ñu jàng la bëgg mbokk yi fii may wax ak yéen bari kilifa fii tey ñu sant mbakk yori mbooloo di liggéey liggéey yu am solo ci réew dañ leen a jëng ci ay daara ba ñu mokkal alxuraan karim bari na fii ay kilifa yu sant si di liggéey liggéey yu am solo ci réew mi yore mbooloo dañ leen a jëng ci ay daara bañ mokkal alxuraan mbokk yi bari na fii sëriñ su sant ñas di liggéey liggéey yu am solo ci biir réew mi dañ leen yóbbu ci daara jëng leen bañ mokkal alxuraan kariim mbokk yi sa waajur bi nga xam ne mooy jàpp ci sa loxo yóbbu la ca daara ñoom ci jëng la kooku bañu la mbokk yi waajur mooy ki gën a bëgg doomam koo xam ne boo sañoon yaa koy njëkk a faatu waajur woo seen muy dem bu sañoon ay dooma koy mujj ci kaw suuf waaw ki nga xam ne da nga koo yéene lu baax yéene koo yéene ba boo sañoon yaa koy njëkk a dee waaw ndax yéene mën naa weesu loola te way jur woo seen nag bu sañoon ay dooma koy ay dooma koy mujj ginnaaw loolu mënu tawee su mbëggeel waaye kookee nga xam ne nii la mel ci doomam bu demee bay jël lañ wala ceen def ko ci tànkam am na lu mbëgg ci xale bi te xale bi xamu ko mbokk yi man nii bi ma amee juróom benn isib ci alquranul karim tollu xat sañaan ba ni ma xëyee wàcc alquranul karim am na juróomi at yoo xam ne amul wenn weer wu mat sëkk woo xam ne toog naa ko tas ma tànk bi ay jëng dee ci man dañu maa jëng boo ma xëy mokkal alquranul karim lu ma wàññi lii ne samay wajur bëggoon ci man tey waaw ndax man lañ doon jëng rëcc naa lañ ma doon jënge sama wajur yi ma doon jëngul ndax rëcc lañ la tax ñu doon ma jënge ngir ma man alquranul karim genn kàddu rek la sama baay daa wax abadan fu ma mos a dawee ci daara ji boo ñëwee mu ne daal maag yow dañu bokk nekk ci kaw suuf mukk te bokkul alxuraan baat bi rek la ma daal mbokk daw naa jàng ñu jàpp ma ci sama loxo indi ma ci samay wayjur bi ñu ñëwee fekk sama wayjur wu góor génn ci tukki sama wayjur yu jigéen lañ fekk ci kër gi keroog dama diñe xëyu ma ndékki xëyu ma añ añu bi ma agsee waa kër gi ne ko tenkoo ko teñ ko jox mu añ mu ne déedéet sama way jigéen laa moo jàpp ci sama loxo teg ma ci voiture boobu dëkk bi voiture fi am yóbbu ma ba ca soudure métallique ba mu daaj fa foofu jëng ñu daajal ko jëng ñu soudé ko ci samay tànk mu teg ma ci voiture bi wutal ak man daara ci sama way jur jigéen ma doon def loola ku yi xanaa kenn ku ci nekk war naa xam yaay moom cosaan gi am ci loom waaw tey jii bu ñu ma séenee ne ko kee sa doom la waaw moom ndax dana rëcc lan doon def doomam ngir mokkal alxuraan karim kon mbokk yi yar bii ñuy yar xale yi ci daara ji bëgg leen yiw rek moo tax ñu yar leen waaw dama ñu ne dañuy tumarankel gone yi ci daara ji dañ leen di fitna dañ leen di tegi coono kaso bii ña ñuy monooti di leen fa yóbbu ay mu kàllaf lañ dañuy dem ñu di leen summi di leen médital di leen tegi coono benn cellule boo xam ne cinq cinq mètres carré lay lay yaatoo nga dugal fa lu mat téeméeri nit wala téeméer ak nangam bu ñu toogee dañuy uufante bu guddi jotee bu ñuy tëdd kenn ku ci nekk da ngay uuf sa borom ñun ñëpp taxaloo umurante boobu ñu leen di def lu tax boo leen waxoon ji dañ naan dañ leen bëgg a yar boobu bu ñu génnee boo liggéey ñu leen fi indiwoon doo leen dalaat waaye mbokk ndegam loola mu kàllaf mu mat koy def rawatina xale bii nga xam ne moom xàmmeegul dara nga téye ko fii ci daara ji bëgg koo yàq yow ngay yar mag ba noppi ne bu ngay yar gone waaw xanaa xam ne gone gii nga ne bu ko kenn yar buñ ko yar buñ ko yarul ci daara ji bi ñu doon gone bu doonee mag ci sa loxo lay mujj nga ne da nga koy yar lii doo nga tax ñu yar gone ci daara ji yaxfirullah bi wala wala saa